أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونغي عندك أيين كتاب التوحيد muy buntu ñaar fukkeel buntu bi nga xam ne moom la ñuy jeexal tey mooy baabu ma jaa an alguluwa fi quburi salihin yusayiruha awsaanan tucbat min dunillah mbokk yi buntu boobu la ñuy jeexal tey waaye duñ ko jeexal mu lu dul ñu jële ci dars yi paase ay tomb yu ñu mën a teg sunuy baaraam tomb yooyu nga xam ne war nañ cee mën a teg sunu baaraam bu ci njëkk mooy al awsaan lan mooy xërëm su fekkee dars yi paase leer na ci ñun dégg nañ ko bu baax danañ xam kon xërëm du rekk bant bu ñu yet walla xeer bu ñu yet waaye danañ gis ne lépp lu doomu aadama aj xolam bi di ko màggal di ko jaamu loolu day nekk xërëm ci moom moo xam bàmmeel la moo xam jàkka la moo xam garab la moo xam moo xam lépp lu doomu aadama jaamu comme ni muy jaamoo yàlla na yëg ne moom loolu muy jaamu xërëm la ci moom te xam ngeen ne xërëm li ci lislaam wax mooy jaamu ko du xërëm du dugg aljanna li njëkk li yàlla tere mooy weddi xërëm soo weddiwul xërëm doo mën a nekk jullit balaa ngay nekk jaamu yàlla dëgg dangay bàyyi xërëm moo tax tomb bu njëkk lu ñuy jële ci dars yi passé mooy al awsaan mooy xërëb yi foog ñu bàyyi leen ñaareel mooy al ibaada jaamu jaamu mbokk yi foog ñu xam ne yàlla moo ko moom kenn amu ci place kenn amul lu mu ci dogal kenn amul lu mu ci rëdd kenn amul lu mu ci wax yàlla moo ko moom mbooleem jaamu nag fekkee wax la bu dee jëf la bu dee lu feeñ la bu dee lu nëbb xeetu jaamu yàlla yooyu yépp yàlla moo ko moom kenn amu ci place kenn amu ci lu muy def te tey soo xoolee da ngay gis yàlla day moom dara ñu jël ko xaaj ko wala sax yenn saa yi du ñu xaaj waaye dañuy jël lépp jox keneen bàyyi yàlla te baatu ibaada moo tax yàlla binduñu wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun wa maana yabudun yuwahidun jaamu yàlla moo tax yàlla binduñu te maana jaamu yàlla lu muy tekki mooy ñu wéetal ko bañ koo bokkaale ci kenn bépp baat bu ñëw ci ibaada ci alxuraan li muy tekki mooy tawxiid mooy nan wéetal yàlla yàlla bëggul ñu jaamu ko di ko boole kenn moo tax bi nga taxawee ci julli di julli bi ngay jàng faatiha danga joxoñ yàlla baaraam ne ko yow kenn lañuy jaamu iyaaka naabudu yow rek keneen amu ci place moo tax jaamu yàlla yàlla ko moom buñ ci boole kenn ku dul yàlla loolu tamit bu fekkee dégg nañ sunu dars yi passé danañ xam ne yàlla rekk rekk lan war a jaamu ñetteel mooy annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yastaiz illa bima yuxaafu wuquahu ku toll na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est-ce que mbokk yi ku toll na yonent bi dina ragal dina laqatu dina muslu ci mbir moo xam ne ragaluñu lorom mbir moo xam ne ragaluñ ko du indi benn danger ci ñun mbir moo xam ne daa baax ci ñun mbir moo xam ne day baaxal sunu àdduna baaxal sunu alaaxira yonent bi dina ci muslu kon looy kii dégg mooy yonent bi lépp lu mu muslu pour loolu am loolu lan la loolu lor la loolu musiba la yonent bi lan la muslu mooy yal na ko yàlla musal balaa ñuy jàpp bàmmeelam di ko def xërëm comme tey ni ñu defee ay bàmmeel xërëm ndeysaan léegi léegi matagul 20 minutes ay waxtaan ak benn mbokk mu ne benn waayam daf ko invité woon ci benn dëkk nee na mu bañ a dem waa ji fexe ba yóbbu ko ne ko yow comme danga bokk ci mbooloo sàngam dama bëgg nga ñëw ñu ànd sunu dëkk nga xool li fa nekk di nga xam ne ñun ñoo nekk ci dëgg yéen da ngeen di caaxaan rek nee na comme waa ji wax na ko baat boobu nag nee na mu ne ko nan dem ñu ñëw nee na waa ji li mu ko won mooy ay bàmmeel kese yu ñu tabax ba mu rafet di ci sànni xaalis loolu kese ma ne ko ah déedéet kay xanaa koy kon ku lay won dëgg pour wax la yow ci caaxaan nga nekk xanaa kay mu ne daal bàmm ay bàmmeel dong la ma yóbbu bàmmeel yoo xam defar nañ ko ba mu rafet di ci sànni xaalis mu ne ko ma ne ko lii kese la mu ne waaw lii kese la mu ne waaw ma ne ko waaw jërëjëf jël leen seen dëgg kon kon li yenent bi doon ragal pour balaa ñu koy def bàmmeelam loolu moo am tey jamono bu fekkee dañuy wax dëgg rek dëgg rek a tax ñu jóg loolu yonent bi doon ragal tey waa jamono moom lan def moo tax moom yonent musta muslu wala muy làqatu wala mu ragal mbir moo xam ne lor nekku ci yonent bi lépp lu mu ragal rek musiba moo ci nekk lor moo ci nekk loolu mu ragaloon nag mu am ci bàmmeelam loolu la yàlla nattoo julli di tey mu am ci seeni bàmmeelu kilifa yi loolu tamit bu fekkee leer na ci ñun dañuy dégg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu ragal rek mu am ci xeet wi loolu amalul xeet wi njëriñ ñeenteel mooy qaranuhu bi haza al ittixaaz quburul anbiyaai masajid yonent bi alayhi salaatu wasalaam tollale gi mu tollale jàpp bàmmeelu yonent yi def ko jàkk mu ne yaani annahu lamma qarana bi zalika du'a yonent bi ba mu tollalee loolu ak ñaanam ba mu ragalee loolu moom yonent bi mu ngi ci sukuraat waaye dafa ñaan ne yal na ko yàlla musal balaa ñuy jàpp bàmmeel yi di leen def ay jàkk lu tax mu ne loolu ilmun anna ittixaazuha masajid zariatun ila ittixaaziha awsan mooy saa yi ñu demee ba jàpp bàmmeel yi ci jàkka yi def leen ay xërëm kon léegi lan lañ def jaamu nañ xërëm moo tax tey tey ci sunu réew ñu bari ci ñun dañuy jàpp ne xërëm buñ ne waa ji man da ngay dégg kenn mu ne man jaamuma xërëm da ngeen ñuy tooñ da ngeen di tooñ parce que ñun ñoo la gën a xam ne mais lan mooy xërëm photo bi nga takk ci sa dënn xërëm la loo ko takkee am na lu tax koo fi gis mu takk photo ñëwal ba ci moom ne ko asalaamaaleykum wa nga ne ko lu tax nga takk li lu mu lay tont dama ko gis nga bu ma ko laajati yenn saa yi sax nga gis ki lay tont daanaka da nga naan kii na xaar ma dem mais am na lu tax mais pourquoi nga koy takk lu tax munoo mel ne jullit yépp est-ce que yonente bi daan takk photo saxaaba yi bëggoon nañu yonente bi wala bëgguñu ko. bëggoon nañ ko lu tax takk ñu ko photom kenn mun ne photo amul woon jamono yooyu ñu yett ko ci ay bant ndax ñu ngi doon yett lu tax mënuñu ko woon yett takk ko loolu sax dafa sori fii rek sunu sëriñ su mag si daawuñu takk ay photo wala lu tax kon ñi koy takk nag ñu ko def ay ay def ko seen saal yi nag pourquoi soo bëggee nit bàyyi ko sa biir xol bëgg boobu rek doy na waaye da nga gis koo xam ne buntu këram biir saalam otoom saal da bee bi muy sangoo sax yenn saa yi mu def fa loolu musiba la di loolu fu ñu jëm ngir wane ne man maa ah man damaa dem ba jeex sama mbëggeel gi ba booy bëgg loolu dem ba jeex bëggal yàlla bëggeel noonu yonent bi foofu la mbëggeel yey gis nga yàlla moo ñu wax ci quraan te yàlla moo ñu xam wa min annaas man yattaxis min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah wala loolu du alquran am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jàpp leneen lu dul yàlla bëgg ko lu raw ni nu war a bëgge yàlla alquran moo ñu ne wa iza zukira allah wahdahu bu ñu waxee yàlla rek mu ne izma azzat qulubu allazina la yuminuna bil axira nga gis xolu ñi gëmul alaxira di lemu léeg-léeg nga dugg mbooloo jël micro daal ne yàlla nee na ñu ne kii lu tax ngeen jox ko micro bi ah ah ah kan nga ko fi invité yow kii kii ah nga gis ko ay ay munum munum fa iza zukira min dunihi bu ñu waxee keneen ku dul yàlla fa iza hum yastafsun ñëpp kontaan waaye ci la waay loolu ci lan la bokk ndax loolu du bokkaale ndax loolu du xërëm kon bu leen jàpp ne xërëm benn waay bu nekk fële ci àll bala bu samp benn xeer di ko wër aha kay ci la bokk wala benn waay buy wër fee garab am na ñoo xamante ne ñi ngi seen biir kër di jaamu ay xërëm yu mag a mag a mag a mag a mag a mag ah gis naa tey ci jamono lu ñu xewal jël sa photo kilifa def ci juróom-ñaar photo ne juróom-ñaari photo yooyu boo ko laalee wala nga fóon ko wala nga wax ci dara da ngay am loolu musiba la wala boo xëyee nga fóon birig bi tudd waa ji juróom-ñaari yoon bis boobu doo ñàkk dépasse yooyu mbirum seytaane la jullit du def loolu boo xëyee da ngay tàllal yàlla sa loxo yàlla nag ku mu doyul dara dootu la doy loolu moo tax il faut ñu comprendre diine bi dëgg dëgg dëgg pour ñu mën a am tawxiid ñu ban a dendale yàlla ak lenn yàlla dafa fiir ku ko bokkaale da lay dugal safara moo tax ngeen dégg mu ne bokkaale duma ko baalaate inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi yàlla nee na duma baale mukk mukk mukk mukk mukk ku ma bokkaale xoola yàlla ne mun naa baale leneen wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mun naa baale leneen ci ku ma neex waaye innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna képp ku ma bokkaale araamal naa ci yow safara aljanna araamal naa ci yow aljanna kon lënkale gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lënkale jàpp loolu def ko ay jàkka dafay wane ne ittixaasuha awsaan day wane ne xërëm la bu doon du xërëm bi kilifa gi génnee àdduna ñu yóbbu ko ci armeel ya suul ko bàyyi ko fa ñibbisi maadaama jël nañ ko ci benn kër gi ci benn espace ci benn ruq wala ci jàkka ji rek def ko fa rek am na luñ ci namm pourquoi yóbbu ko ma ci armeel ya suul ko foofu est-ce que am na ku gën a màgg Ousmane Ibn Affan boo demee bàmmeeli Médine fekk mu tëdd ak saxaaba yi billahi lazi la ilaha illa hu est-ce que am na ku gën a màgg Hamza boo demee Uhud fekk fañ ko rey la ko yonent bi suul ñooñu am nañ ko leen gën a rëy ah kon lan moo tax ku dee Sénégal rek ñu tabax benn ruq dugal la foofu duñ la yóbbu ci julli li suul la fan suul julli si mbokk yi juróomeel tomb ci lu ñuy jële ci dars tawxiid yi passé mooy zakara siddatul ghadabi min allah mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mer gi mu wax yonent bi dane yàlla dafa mere ku jël bàmmeel def ko jàkk meru yàlla est-ce que xëj na ci nit ah meru yàlla xanaa loolu rek war naa tax nit ñi daw suñ nee boo defee dara yàlla mere la nga bañ ko def yonent bi moo ko wax nee na siddatul ghadabi min allah taru meru yàlla këpp na ci kaw ñépp ñi nga xam ne dañuy jël ay bàmmeel di ko di ko jaamu loolu fuñ ci toll tey da ngay gis nit ñi nit ñi gëmee bàmmeel yi kuy dem sax day yóbbaale jabaram yóbbu ay doomam waaw boo jimee bàmmeel yi nga gis kii garde bàmmeel bi ne la simil sa mbax ne ak say dal nga ñëw taxaw mu ne la toogal loolu xërëm la tax ñuy simi jàmbaax ne lu tax ñuy simi dàll yi pourquoi lu tax ñuy toogloo nit ñi te yonent bi tere ku toog ci bàmmeel waaw ñaan leen seen aajo fii ku fi ñaan aajoom aajoom faju loolu loolu bokkaale la looloo tax nit ñi fi fëx fëx parce que loolu la leen wan te loolu yonent bi moo ne ñu koy def yàlla da leen a mere yonent bi nee na ñu koy def yàlla da leen a mere mu leer naññ hadis bu leer naññ naññ naññ yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko istadda la wax meru yàlla tar na tegu na ci kaw gaa yi nga xam ne ittaxasu qubura ambiya ay masajid istadda xadabullah la wax istadda xadabullah meru yàlla tar na ala qawmin ci ay nit ittaxasu yu jàpp qubura ambiyaihim masajid yu jàpp seeni bàmmeelu yonent def ko jàkk il faut nit ñi natt yonent bi fi muy waxee yonent bi ñan la tànn ci xeet wi ñan la tànn yonent yi yonent yi la tànn ne ñi def jàkka bàmmeelu yonent yi yàlla mere na leen kon ñeneen na ndax yéen am ngeen ko gën a foor yonent yi yonent bi pourtant bi muy dund xam na ne ay yonent dootu ñëw ginnaaw kon lu tax mu jëli yonent yi parce que daf leen bëgg a won ne ñi gën yonent yi amuñ ci kaw suuf kon yéen ñii bu leen ko def moo tax gis nga alxuraan yàlla bi ñuy wax mbirum bokkaale daf ne laa tasjudu li samsi wala lil qamar bu leen sujootal jant bi bu leen sujootal weer wi lu tax yàlla yóbbu ñu ba ci jant ak weer am na lu leen gën a kawe bu dee da ngay ut lu kawe gis nga lu gën a kawe weer ak jant bu dee da ngay gis lu rëy est-ce xam ngeen ne jant bi moom suuf si waaw moo tax gis nga yàlla bàyyi fi lu ndaw ndawaan yi dem ba ci ponkal ya ne la loolu sax bu leen jaamu la tasjudu li samsi wala lil qamar bal mu ne la fasjudu lillahi allazi xalaqahun sujootalal yàlla mi nga xam ne moo bind yii yàlla moomu ngay sujootal yàlla moomu ngay màggal yàlla moomu ngay jaamu amma keneen mbindeef la comme yow da ngay jàng ci usulu salaasa ñu ne la kullu ma siwa allahu fa huwa aalamun lépp lu dul yàlla mbindeef la yàlla mbindeef la wala lu tax nit ñi bañ loolu lu tax nit ñi bañ ne lépp lu dul yàlla mbindeef la ah lu dul yàlla mbindeef la xataa yonent bi mbindeef la lan la lan moo ko tàqalee ñu yuha ilayya qul innama ana basarun mislukum moo ko wax alquran man mbindeef laa comme yéen lan moo ma tàqale ak yéen yuuxa ilayya dañuy may wax yu yàlla mooy wax ak man jeex na léegi nag ñun ñu jàpp ne am na ñoo xam ne ñoom du ñu lekk du ñu naan ay wali yu lañ kaw asamaan la ñuy fanaan lu yàlla bëgg a def sax mun nañ ko ne yàlla doo def loolu lii mooy am bu yàlla xiinaloon asamaan bi mun nañ ne yàlla doo ko fi towee bu yàlla reyoon seen benn taale bi mun na ne yàlla day dekki fal force xolal yooyu xoolal wax yooyu da ngay dégg ay kilifa ñu leen di seedeel yi wax yooyu dégg naa benn waaye mu ne Abdul Qadir Jaylaani dafa ñëw fekk benn taalibeem faatu mu ne woy xaar leen ma mu ñëw rek mu ne ñu ne mu naaw dem kaw asamaan mu dajeeg malakal mooti xaw ma ban asamaan lañu wax mu ne mu pes ko pañe bi malakal mooti yore woon dafa ruu yi mu rayoon bis boobu yëpp pañe bi wadd ñi dee woon ñëpp dekki ruu yi naaw delluwaat ci yaram yi ñi dee woon ñëpp dekki taalibe bi dekki mu wàccaat ne wuy ñu koy rey te tàgguwuma te wax yu garaaw yooyu bu ñu koy wax da ngay dégg nit ñi naan est-ce que kii di yuuxu di mbëkk ay miir di dof dof waxu dof yooyu Abdul Qadir Jeylaani dina pes malakal mooti est-ce que wax boobu normal na est-ce que ñi koy dégg normal nañ ku toll ne malakal mawti ku toll ne Abdou Khadir Jeylaani dina pes malakal mawti yooyu yooyu du wax yu jub nit ki mën nga ko bëgg mën na am martaba mën na nekk ku baax waaye bul ko bul ko waxaloon lu amul ma ne bu nu doon pes malakal mawti kay keroog ba mu reyee yonent bi xanaa ñu pes ko malakal mawti rey ku gën waajooju kenn pes ko mu rey benn waay fii rek ñu pes ko xanaa waajooju moom lan la sab yoo xam ne yenuwul maanaa te loolu yëpp li ko fa li ko waral mooy farfarloo gis nga nit ñi dañuy bëgg di wax ba wax yu amul te ñi ñuy waxal ñoom duñu xalaat duñu nekk ay nit te nit bu de xelam dañee ci moom rek nekkatul nit laa diinu li man laa aqla la su fekkee sa xel mi yàlla mayoon la ngay analyser ci sa xel tey li may wax chaque jour boo doon jënd dara nga dem ci jaaykat bi mu teg blanche yi nga ñëw ne ko jaay ma ceeb mu tibb ci ñaari loxo bi ba mu fees ne la ana sa saak nga ni ko mu ngi nii mu sotti ne la demal indi xaalis bi da ngay dem da ngay dem li tax demoo loo koy wax mais est-ce que li man na mu ne la man na nga ni ko nañ ko peese gis nga lu tax bu la benn waaye waxee dara doo ko wax nañ ko peese te yàlla jox la balance bi balance la la yàlla jox balance mu ne la wasinu bil qistaatil mustaqim yàlla ne la nañ ko peese lu ñu la wax nañ ko peese arrahmanu allama alquran xalaqa al insaan allamahu albayaan alsams walqamaru bi xusbaan walsams walsajaru yasjudaan walsamaa rafaaha wa wadaal yàlla ne maa teg balance bi wa wadaal misaan pour nga peese balance bi la balance ñaata palaat la yam ñaar balance ñaata palaat la yam ñaar yàlla jox na la ñaari palaat alquran ak sunna lu la waaye wax rek tegal indi wax ji rek nga teg ci balance nga xool léegi nga dégg égu bi ne la déedéet déedéet déedéet waa ji li mu wax amul alquran def ko weddi dindil tey gi benn misaal waa ji ñëw ne la am na yonant mu ñëw Sénégal su la kenn bëggee convaincre kenn bëgg laa wax loolu yow nooy def pour nga pour nga weddi loolu nooy def wax jooju waa waa ji wax la wax jooju waa ji wax la da ngay jël wax ji daal di koy teg ci alquran alquran daal ne la déedéet maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah xaatama nabiyin alquran ne la beneen yonent dootul ñëw ndax nee na la wax xaatama nabiyin nga teggi waxam beneen waayu ñëw ne la mën ngaa takk lopp ñeenti jabar de ngay def ak moom nga teg blanche yi alxuraan ne la fankihu ma taabalakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa jeex na beneen waaye ñëw ne la ñun de duñ julli bul jullee ci dégg nga boo gis nga moo gën a gaaw bàyyi julli moo gën a gaaw dugg àjjana da ngay rek da ngay bàyyi julli dem toog ñu wax nga ne diw moo ma bàyyi loo julli déedéet danga naan ko nan ko peese nga teg ci alxuraan yàlla ne la wa aqimu salaa ban ngay gëm saa yoo tegee ci sunna gisoo boo demee ci alxuraan di nga ko gis lépp lu ñu la wax yàlla daf lay indil balance ne la peese leen ñun nag lu ñu la wax dëgg la diw moo ko wax ñu ne waaw ñu ne dëgg la dëgg la loolu ban dalil la diw moo ko wax rek dëgg la loolu dafa am al isnaadu min ad-diin lawla dalika la qaala man shaa ma qaala loolu da qaida la règle la dañu ne cëslaay cëslaay preuve ci diina la bokk su dul loolu ku nekk da ngay xëy rek di wax bu ma ñëwee léegi suba ma ñëw ne leen yàllaa ngi leen di nuyu yéen ñëpp jox naa ko seen numéro téléphone dina leen woo est-ce que ay dox chose bu garaaw gis nga xam nga loolu fan laa ko teg sama bànneexu bakkan yàllaa ngi leen di nuyu fan laa gisee yàlla xoolatee ñi ñëw ne gis nañ yàlla aaye bi gën a bi gën a aaye bi gën a gàtt nga xam ne dafa tënk tawxiid lépp bu ko waa Sénégal diggoon sax duñ leen nax laysa ka mislihi shay yàlla nuróowul ak dara ki ne damaa gis yàlla daal amul lu mu gis ah yàlla nee na ma nuróowuma ak loolu waaye nga ne gis naa ko borom xam-xam yi jàngale axiida dañu ne fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik sa xel lu mu xalaat ne yàlla noonu la mel yàlla melul noonu yow mi gis ba ne gis naa boo ne gis naa diw ki gis Macky Sall ak ki gis Ablaye Wade est-ce que benn lañ est-ce que ki leen gis mënu leen définir ah est-ce que mënul wax nu ñu mel est-ce que buy wax nu ñu mel da ngay day nekk benn te tey kii ne la ñun ñii ci jàkka ji kenn ku nekkoon boo ne woon damaa gis yàlla suñ la laajee nu mel di nga wax est-ce que sa bos ak bosu kii ñoo niroo est-ce que bosu kii ak bosu kii ñoo niroo est-ce que kon ñun ñii ñëpp yàlla ñaata façon lay doon kon moo tax yàlla mu ne leen laysa ka mislihi shay man nuroowuma ak dara te yow li nga gis dara la moo gën a ndaw mais xoolal xoolal qaayida boobu xoolal loolu xoolal buntu boobu niñ ci sànke ay nit dañ ci sànke ay nit bàyyi loo leen jaamu yàlla bàyyi loo leen julli bàyyi loo leen jàng alquran bàyyi loo leen bàyyi loo leen yàlla nanu yàlla jubal mbokk jullit yi juróom benneel ci bunt bi mooy wa hiya min ahamiha moo ëpp importance ci bunt yi sifatu maarifatu ibadatu loota allati hiya akbarul awsan du hasard yàlla di tudd ay turu xërëm ci alquran di ñu ko wax pour ñi ñu mën a xam ne xërëm yooyu du nekkuñu woon ay garab nekkuñu woon ay xeer nekkuñu woon ay bant ay nit yu baax lañu woon yoo xam ne ci seen jamono dañ doon jaamu yàlla ba faatu nit ña bëgg gañ leen bëgg dem samp leen ay estati génération yi yàgg mu nekk ay xërëm ñun ñi sunu maam yi sunu maam yi bu fekkoon na dañ ñu sampaloon ay mbir di ko jaamu lan moo indi tuur tey tuur dañ koo samp sax ñi tuur lan moo ko indi du la nga ñëw fekk sa maam di tuuru nga judd mu yóbbu la sampal la nga commencé di tuuru suñ la ne lii baaxul bokku ci diine lay wax man lii ma fekk samay maam di ko def nga naan ma lan ma fekk sama baay di ko def nga naan ma lan ma fekk looloo garaaw fekk xam nga ne baaxul ñooñu fekk gi ñu fekk seen i maam yi di ko def ak seen baay yi moo tax ñu def ko mais bu ñu fekkoon seen baay ak seen maam yi di ko def est-ce que danañ ko def kon nekkul ne rek li ñu fekkee sunu baay ak sunu maam yi ñu koy def rek ñun dañ ko war a toppandoo di ko def déedéet nañu fexe ba xam ndax lii diine moo ko santaane ndax lii lu leer la lu baax la ndax yonent bi moo ko digle loolu moo tax yàlla indil ñu ci alxuraan ay tur afara ay tumul laata wal uzza wa manaata saalisata al uxra jàngeen ci alquran laa tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yauqa ay ñooñu ay nit yu baax lañu woon ba ñu faatoo la leen nit ñi dessiné daf leen ay photo daf leen ay estati samp leen ca barab yañ doon toog ba ci yàgg sax day day day day day metti ngay dem boo bis bu nekk da nga ciy photo dugal sa biir néeg bu xëyee di ci raay juróom-ñaari yoon dugg génn wala boo boo gën a yomb bal sax boobu day yomb léegi da nga koy takk sa dënn di ànd ak moom waaw daa ne mi ngi nii maa ànd ak moom ku ma gis na ma gis ak kii su may dee moom laay deewal bu may dund moom laay dundal bu ma deewee sax na ngeen ma booleeg moom suul loolu du diine diine dafa yomb te set diine bëggul dara lu taq diine bëggul farfarloo te yooyu yépp day day tàqale jullit yi moo tax jullit yi tàqali ko bu kiy takkee móodu kiy takk paate kiy takk yaro kiy takk duudu kiy takk kiy takk kiy takk ku nekk nga takk ki takk duudu bu la ne àllaajee gën looy wax xeex ñëw histoire commencé bañante commencé noonoo commencé jaana danañ ci yàlla musal kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaj bi mu ñu jaaj mooy nañu mooy tandiku comme xam nañ ne ñële ñu baax lañ woon nit ñi ñoo leen mujj soppi ay xërëm ñun nañu moytu loolu juróom ñaareel ci bunt bi mooy maarifatu annahu qabru rajulun saalih yàlla xamal nañ ne yonent bi xamal nañ ne bàmmeelu nit ku baax kenn du ci barkeelu kenn du ko raayi kenn du tibb suuf si bal kenn du toog sëpp say óom say cati baar say cati baaraami tànk jublu ci bàmmeel bi yëkkati say loxo loolu toroxlu la bàmmeel kenn du ci jàng alxuraan alxuraan kenn du ko jàng ci ay bàmmeel loolu xadis la ku mokkal xadis bi fii ku mokkal xadis bi yonent bi ne bàmmeel kenn du ci jàng alxuraan pourtant dars passé waxoon nañ ko de wala bi ñuy jàngale teggin bi ñuy demee bàmmeel yeneen di waxoon na bu leen def bu leen def seen kër yi comme ay bàmmeel laa tajaalu maqaabir fa inna al bayt allazi tuqra fihi suratu lbaqara laa tadxuluha sheytaan aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi nee na bu leen def seen kër yi comme bàmmeel bu leen def seen kër yi comme bàmmeel kon loolu moo lay wan ne bàmmeel léegi na gis ku gàddu kaamil yóbbu ci bàmmeel yi yenn saa si nga gis kaamil bi ñu wutal ko benn place ci bàmmeel bi dañuy tabax bàmmeel ba mu rafet def ci ay ay triwal teg kaamil bi bu waa ji ñëwee rek fomp daal di toog jàng yaasinam delloo dem demaat allahu akbar danañ yàlla yërëm kon nit ku baax nit mën na dem ziyaare ji bàmmeel waaye dafa am sart fexeel ba bul fa bokkaale waxuñu ziyaare bàmmeel dafa araam de dafa am ay sart waaw annahu ismu saahibul qabr juróom-ñetteel mooy wa zakara maana tasmiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa leeral alquran ay tur yu ci ñëw mu xamal ñu ne ñii ay nit ñu baax lañ woon waaye seeni bàmmeel la nit ña de mujj dem bóof bal yonent bi sax daf ñoo wax turu ñooñu ndax mbir yi war a leer ci ñun juróom-ñeenteel mooy laanahu zawaaratil qubuur yonent bi dafa rëbb jigéen ñi dëkk ci bàmmeel yi guddeeg bëccëg waaye dem ci bàmmeel yi fekk fa jigéen ñi ndeysaan waaye jigéen ñi ziyaare gi ñuy lambar lambaree ci bàmmeel yi yu bari daf ko daf ko daf ko ëmb yu bari ñenn ñi demuñu ziyaare gi rek ñenn ñi ay liggéey la ñuy yóbbu xam ngeen jigéen dafa bëgg affaire yooyu affaire sëriñtu affaire xërëm ñenn ñi ay xërëm la ñuy suuli ñenn ñi ay gàllaaj la ñuy uti ñenn ñi dañ leen a digal comme dañu am yu ñu bëgg ñu digal leen foog ngeen def ko ci bàmmeelu nit ku baax wax naa leen dars bi passé damay liir dars bi passé lu tax ñu rëbb jigéen ñi dem ci bàmmeel yi ba ma yegg ci tomb boo xam ne jigéen dee dem ci benn buxaaba jigéen joo xam ne musta am doom bëgg am doom xam ngeen loolu phénomène la nga dem buxaaba bi ne la da ngay woddu sër te doo sol tubéy nga dem ba ci bàmmeelu diw tudd nit ka nga ŋàppee ko ci diggante say tànk ci diggante bàmmeel yi di nga am doom di nga ëmb nga gis ndaw si def lool loolu est-ce que diine la di xotti xorma ba dem ci ay armeel di xotti xormay néew yi da ngay gis am na ñoo xam ne mbër yoo xamante ne dañuy dem jël yaxu nit loolu déggu leen ko fi mbër yi dem ci armeel yi di suli néew yi di jël seeni yax wala càngaay bi bu ñu bëggee takk nit sëriñ bi ne la demal nga indil ma càngaayu nit ku dee ci journée bi nga fexe ba dégg ku dee rek nga topp ko ba xam ne fii lañ ko suul tey nga samp ci bant guddi nga ñëw gas ba mu xóot ba jot mbalaan mi xotti ko xotti ci wala sax nga muri ko dindi mbalaan mi dem sa yoon wala Sénégal fu mu toll am na ñoo xam ne yenn gàllaaj yi ñu bëgg nan naan la gàllaaj gi pour nga am ko dangay fekk garab gu sax ba màgg ay reenam romb nit ku dékki traversé ku dékki ci suuf walla ci kaw kon xam nga néew boobu yàgg na fa parce que garab gi màgg na ba reen bi ronu néew bi ñu ne la bant boobu la ñu bëgg boo ko indee ñu defal la li nga bëgg nga gis waa ji am fit dem ci armeel yi sulli benn néew fexe ba gas ba am bant bu ronu néew bi ci reen yi mu dagg ko ñëw indil ki ko ko yónni woon loolu yépp tey yéen a ngi koy gis mu nekk musiba yoo xam ne ci réew mi la nekk nit ñi ne patt pattaaral ne duñ ko wax te bëgg a nekk ay jullit te mbir yooyu ku koy def nekk ko jullit kon yàlla daa rëbb yonent bi daa rëbb jigéen ñi lambar lambari ci bàmmeel yi bépp jigéen boo xam ne yaa ngi lambar lambari ci bàmmeel yi yonent bi rëbb na la fukkeelu tomb laanahu man asrajahu yonent bi rëbb na ku taal làmp ci ay bàmmeel kon bàmmeel yi nga xam ne ñu ngi koy tabax di ko rafetal da ci def ay pot de fleur da ci def ay photo da ci def ay ànd cuuraay da ci def ay làmp nañu xam ne ñiy def loolu nañu xam ne yonent bi rëbb na leen nit ku dee li mu gën a bañ pour gis ko mooy safara nit ku dee benn misaal rek laa leen di jox fi mu nekk nii malade malade bu feebar fi mu tëdd bagage yi ñu koy fajee lan la ci gën a bañ a gis ah pikiir bu waa ji indee ngandum pikiir taxaw sa wet naan nii malade bi fële lay xool gis nga néew li mu gën a bañ a gis mooy safara parce que safara du mbokkam malade it li mu gën a bañ a gis mooy pikiir dafa am jamono yoo xam ne waxtu yoo xam ne mbir mii kenn waru ko woon waa ji te tey loolu mooy li am am na bàmmeel yoo xam ne fi mu nekk nii làmp ya fay tàkk moo gën a rafet làmp yi nekk ci seen saal yi wala wala wala am na bàmmeel yoo xam ne ma ne làmp ya fay tàkk soo demee ci biir dëkk bi sax doo ko fi gis am na ñoo xam ne bàmmeel seeni bàmmeel làmp ya fay tàkk mën naa yor dépaasu benn miskin weer ñu jël làmp boobu taalal ko néew karo yooyu ñu defal ko néew fleur yooyu yenn saa yi nga gis bàmmeel boo xam ne dundal na juróom fukki nit juróom fukki miskin bàmmeel bi liñ ko defaree dundal na juróom fukki miskin xaalis boobu buñ ko jëloon jox ko miskin yooyu ak am importance néew bi day jëriñu miskin yi jëriñu yàlla kontaan néew bi kontaan miskin yi kontaan mbokk yi fii mooy jeexitalu buntu bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tere ñu ëppal ci bàmmeelu ñu baax ñi ba mujj koo def xërëm di ko jaamu bàyyi yàlla bunt boobu jeex na tey ñu ngi jéggalu njuumte yi ci nekk di ñaan sunu borom mu nangul ñu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu